borom bi ni mu waajale yonent bi ku mel ni Maodo xame ko noonu xam nga kenn xalaatu woon ni coobare mooy yóbbu nit aljanna kenn ku ne defe nga ni sa gëg siggi dem Màkka ak rey xaru tabaski moo laa yóbbu aljanna ku ne lool nga foogoon ndeke yàlla yoonam sëriñ Aliou génn nee na taadibul mutiya alladi lam yaxsilla ne moom rekk ko sañ góor gële ñuy pamte pamte jëme jaanama lu mu def ñu ni masul mooy yàlla de parce que looloo ko soob caw bare la waaw yoonam moo tax Maodo coobare lu rëyoon ci moom la mas na ci wax lu am solo mooy dafa wax ni ndeke yonent yi yan yan lañ nu ëpple waaye gënuñu nu judd yonent yépp laa wax yan yan lañ nu ëpple ma gënuñu nu judd ndax nun ñépp aadama ak xawaa moo ñu xam nga loolu bala nga koo xam xawa boo ko xamee ba noppi bala nga ko jëmee wax xawa waaye moom xam na ko wax na ko xam na ni yonent yi gënuñu nu judd waaw ñun ñépp Aadama ak Hawa moo ñu jur